borom ma dema dem na noonu sëriñ dem na noonu borom daara dem na noonu borom ma dema dem na noonu sëriñ Mansoor dem na noonu borom daara jile dem na noonu Sénégal jooy nanu wéetoo borom ma dem dem na noonu Sëriñ jooy nanu wéetoo borom ma dem dem na noonu sëriñ Mansoor dem na noonu bam daara julee dem na noonu Sénégal jooy nanu wéet Lambo Chamet Tidiane ko fi taajoon mu ne da baax bala nga ñëw joxal sëriñ Mansoor moo ay tey moo tax sa ay wi neex na looloo am borom ma dem na sëriñ Mansoor dem na noonu borom dara kilé dem na noonu Sénégal jooy nanu weetoo bilaay ku dem ci waawoon bërki dem ba tey kilé ñépp a jooyoo te Mansoor borom dara jànge Sénégal weet na fi looloo am boy borom ma dem a dem na noonu sëriñ Mansoor dee na noonu borom daara ji dem na noonu Sénégal yooyu na mi wéetu mam moom ak yanjoon te mën a sañ see lewet te am fuule daan maye ba nit ñi jaaxle ku mel ne kii dootul yombo mam boy borom ma dem na noonu Sëriñ Mansoor dem na noonu borom daara jile dem nga noonu Sénégal jooy nañu weet mam boy bu weeru koor wi ma feeñ Mansoor Sëriñ Mansoor nga ci daara ja joxe xam-xam mam Abdou moo ko seede mam boy borom ma dem dem na noonu sëriñ Mansoor dem na noonu borom daara jile dem nga noonu Sénégal jooy nanu wéet mam boy yow buñ la gisaan xel yi day dal buñ la xol yi day leer xalam demoon na beneex lool sëriñ Mansoor dem na noonu lay borom ma dem dem na noonu sëriñ Mansoor dem na noonu borom daara jile dem na noonu Sénégal jooy nañu wéetoo mam boy bu daan nettali waxi Maodo sëriñ Mansoor naan saamaam ne ku sa maam wax ñëwal wax ko gàmmu gi seede na loolo borom na dem dem na noonu sëriñ Mansoor dem na noonu borom daara jile dem na noonu Sénégal jooy na nu wéet mam tax na ba kenn du la fàtte te mooy Mansoor borom daara yaa ngi sañ see bee xilaafa gi yombul borom ma dem dem na noonu sëriñ Mansoor dem na noonu borom daara jile dem na noonu Sénégal yooyu na fi wéet mam boy ki mooy donoy Cheikh Tidiane Mansoor ki mooy donoy maam Maodo wam doonu na maam Babacar Si borom ma dema dem na noonu borom ma dema dem na noonu sëriñ Mansoor dem na noonu borom daara jile dem na noonu Sénégal jooy na nu wéetoo mam boy buñ la gisaan xel yi day buñ la déggaan xol day leer xalam nga moon na ba loo Sëriñ Mansoor dem na noonu lay borom ma dem na noonu sëriñ Mansoor dem na noonu borom daara jile dem na noonu Sénégal jooy nanu wéetoo mam booy Sénégal bari fii ku naan la alaaji bi mbaa ajaabi sëriñ Mansoor waral loolo biyee Makka yi seede loolo mooy borom ma dem dem na noonu sëriñ Mansoor dem na noonu borom daara jile dem na noonu Sénégal jooy nañu wéetoo billaay maa ngi koy jaale jeunesse Tijaan njabootu maam Maodo Malick sëriñ Ando mi di soppeem al amin si wéet na looloo borom ma dem na noonu sëriñ Mansoor dem nga noonu borom daara jile dem nga noonu Sénégal jooy ñoonuñ wéetoo billaay kon am ant atiqan sa wax ak malte lañu lay wax gàcce ngalaam sëriñ Mansoor sa wi neex na fi loolo am booy ma dem ma dem na noonu sëriñ Mansoor dem na noonu borom taare dem na noonu Sénégal jooy kon nag ñun nag liñ war ñun jeunesse yi jaar moo ñu takku taxaw taxawal tariqa Cheikhina Tijaan Sëriñ Mansour wax na lay borom ma dem dem na Sëriñ Mansoor dem na noonu borom daara jile dem na noonu Sénégal jooy nañu weetoo billaay kon nag li ñu war jeunesse ti jaar mooy nu taxaw taxaw tariqa Cheikhina Tijaan Serigne Mansour wax na loolo billaay borom ma dem dem na noonu sëriñ Mansoor dem na noonu borom daara jile dem na noonu Sénégal jooy na nu leetoo bilaay nee leen am ant ati xanta ko amanta ate xanta kon nag nee leen ko amanta ate xanta kon nag nee leen ko amanta ate xanta kon nag nee leen ko amanta ate xanta kon nag nee leen ko amanta ate xanta kon nag ak mata la ñu lay wax gàcce ngalaam sëriñ Mansoor sa ay wi neex na fi loolo kon nag ne la konta ati xamta kon nag ak mata la ñu lay wax gàcce ngalaam sëriñ Mansoor sa ay wi neex na fi loolo